assalamu alaykum wa rahmatullahi wa mbokk yi leen nuyu den ziar tay nag dama leen jox rek si lu gaaw rek secret bu jëm si walu karange karange ne nekk mbir moo xamante si ne lu ngeen ni faral di xeb ngeen eh, te karange kenn du ko xeeb yaakaar naa nekk balaa mu naan naam dafay nekk balaa ngay tal ay ubbeekaay balaa ngay tal ay diggante bu neex balaa ngay tal leneen leneen leneen ak am am lu mënti doon da nga war a tal sa bopp sa karange ndaxte tey bu fekkee ne am nga te amoo parrain am am bi pour lu ko yàq day yomb su fekkee ne tey jii yaa ngi nekk si buumu sëy moo xam nga nekk sa jëkkër wala sa jabar wala ki ngay bëgganteel te amoo kaaraange bu dëgër sa bopp lu waaye ñëw def la ko rek dafay yomb moo tax da ngay nekk nit mu neex dem ba si kanam mu naqari ndaxte mun na nekk ay def def mun na nekk sax cat ndaxte ñi nit ñi moom ñu la rek mun na la yàqal lu bari kon nag da leen bàyyi xel loolu kaaraange moo gën a ëpp solo si loo te gis lii nag képp ku koy def itam na nga am ijaaba na nga set na nga sell te itam boo koy bind na nga am ijaaba comme ni ma koy waxee du nekk na dañuy joxe li ñuy joxe da nga tëb rek def soo paree naa gisuma gisuma dafa am yoon dafa am ay normes yu ñu war a suivre soo koy def ndaxte te ki da ngay set da ngay sell da ngay da ngay da ngay ragal yàlla da ngay am ijaaba bind bi ngay bind sax dafa war a am yoon da nga koy jaarale yoon waaw ginnaaw bi nga defee kun bisimilah rahmaani rahim da ngeen bind xawaatim bi ngeen gis ak ni ma ko bindee si quatre côté yëpp la yaakaar leer na nañ fi ngeen gis noonu si si seen càmmoñ tam ma xaw ko nëbbu benn liggéeyu jàmbur la moo tax ma nëbbu turam mais fi ma def autocollant bi noonu flèche bi loolu noonu mel na genre de flèche foofu ngay bind sa tur ak sa turu yaay sa tur nga fiy dindi ak sa tur yaay soo paree nga jël kayit bi nga lem ko def ko sa poche moom loolu kese la da ngay jël kayit bi bind ko bind sa tur fo ak sa tur yaay pare lem ko def ko sa poche jeex na loolu bu ko defee incha allah foo jëm mu mën di ànd ak ànd ak euh, yow dégg nga bu leen fàttali ma leen bu baax su ko defee lii boo ko góorgóorloo ba def ko incha dina si si lépp. waaw su ko surtout si côté côté côté kaaraange protection protection bu am solo la lol lol lol waaw moo xam si jinne rab nit bët làmmiñ lu mënti doon voilà euh, kon tey loolu laa leen indiloon maa ngi yem fii di leen jox dig daje bu subaa jàmm incha allahu taala asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.